Ravi de vous retrouver, amis fidèles téléspectateurs, dans votre émission Vox Art. Comme vous le savez si bien, c'est l'émission qui vous divertit, qui vous décompresse et qui vous accompagne avec vos artistes préférés. tey nag macha allah dama def rek li nga xamante ni mooy doxantu comme ni ma leen koy fas yéene di defee rek ah c'est une très grande diva ki nga xamante ni macha allah boo demee ci danse bi da nga ko fay fekk nga dem ci musique bi fekk ko fa dema ci animation bi sax danga ko fay fekk na nag li nga xamante ni mooy politique bi kooku mooy kan kooku mooy Oumou Sow macha allah Touba Oumou Sow l'international moom la ñu seet si tey bu ko defee rek dama koy daal di nuyu ñu daal di yooyale ci li nga xamante ni rek may waxtaan bi Oumou noo def. maa ngi fi sister di la ziar di kontaan ci sa teewaay di di la gërëm daal ci sa teewaay nekk biir Amazon boutique daal ñëw fi daal. relax relax rek. macha allah dañ ko fekk si fii nag ci boutique am macha allah mu yaa ngi bay bëgg a dee tarkal la dara fayit loolu. Euh, voilà Oumou dañoo gis nga def benn transhumance bu gaaw ci entre danse bi ak musique bi. Mm. da nga toog ba mu neex la nekk rek nga ne Oumou war na mën a taasu nga taasu wala dafa nekk loo xamante ni ci yow la nekk. waa ci man la nekk parce que depuis quatre-vingt-quinze Fatou Mbaye bu Jali Oscar des vacances. maa ci jëloon maire actrice parce que dañ ko doon imité ci Fatou mbay benn son bu mu defoon ak Jali mu cartonné donc ma Aziz Samb maa ngi koy nuyu de passage mu jox ma fa médaille donc euh, depuis lors inspiration boobu tamit daf may topp suñ nekkee tam ci suñuy spectacle des fois ma jël micro ambiance xam nga léegi nag ma dem Paris benn spectacle di jël son jàmbur di ko jouer léegi son wu jàmbur boobu bi ma demee di ko jouer am ku ma woo ne ma munoo di jël toujours promotion artiste bi di ko def di jël ay wayu jàmbur di ko def di ko jouer il faut boo ñibbee Sénégal nga xalaat créer sa son bopp sa chorégraphie bopp ci sa rythme bopp mën nga ko te xam naa ne osé nga ci côté boobu war nga ko mën a def biñ ma conseillé loolu bi ma ñëwee Sénégal ci laa def euh, euh, fly to fly donc euh, mu génn cartonné ak jubal ba ni koc bi doomu jàmbur ku ko yàq danga ko jurul mu am succès xale yi bëgg ko ñu taal moto bi yooyu ainsi de euh, dañoo gis ne par exemple macha allah sama cat ak sama catu morom sa morom ñi nga doorandool yépp koo ci rawu rawul la macha allah bëgg nañ xam lan mooy secret wu Oumou Sow. ah secret wu mooy yem fi ma war a yem duma dem programu mu jàmbur duma dem duma génn ci benn spectacle wala. fu ay euh, fu xew-xew am te yëgaluñ ma ko buñ ma invité ci fula ma ñëw def li ma war ci fula ñibbiwaat bañ a saturé ndax boo saturé rek boo doon saf publique sax boo saturé ak lu la yàlla bindee ak num la mën a bindee boo nee tëll ci géew boo saturé dootoo saf kenn euh, sama jaar-jaar yombul xëy na su yomboon tey du ma egsi fii donc jaar-jaar la boo xam ne donc euh, tooguma di xaar wala gis benn nit bu ma mën a wéeru pour mu proposer ma ay dara pour ma mën a ànd ak moom pour mën a am succès boobu sama jaar-jaar ci dignité la ci personnalité ci fulla ci fay la ci jom leneen nag loo xam ne nit jël na ko ci man wax ko ci man boobu xëy na doo sama soppe walla sax amaanaam dañ laa yónni ci beneen côté waaye nag gis nga nit soo bëggee garab bu bëgg a nekk pinc da ngay nangu gëm sa bopp yéeg suñ lay sànni xeer sax ngay gën yéeg ndax soo suñ lay sànni xeer sax ngay gestu bu yàggee di nga daanu man moom je suis une personne boo xam ne euh, atteindre ma du yomb parce que euh, si critique wala si sax di di def ay affaire di ma jéem a baare pour bu ma di ma bloquer loolu damay jéggi sax échelle boobu pour pour wan la ne man damay atteindre ji sama objectif man noonu laa mel. Euh, tenue bi nga sol ci sa single bii nga xam ne yàggul euh, jow jur na coow lu bëri fii ci Sénégal ba am na ñoo xamante ni sax euh, sànni nañ ci ay kàddu yoo xamante ni yu ñagas la ma bëggoon xam lan moo waraloon nga jël boobu tenue choix la wala sa ki lay jox sa ki lay solal moom moo porté choix boobu wala yow yaa porté boobu choix. xam nga nit. mën nga gis dara mu neex la loo xam ne ne du mayo de bain du loo xam ne ne tey ji nit da koy sol ci ay jàng wala da koy sol si ay cérémonie yoo xam ne ne mais loo xam ne si spectacle dañ koy sol ci loo xam ne ne danga koy yëg sentir ko tey mën na ma neex te yow du la neex mais li nga xam ne ne yow moo la neex mën na neex say fans wala du neex say fans fans yi sax nag nee nañ moom ñoom buñ la bëggee loo def da leen di neex mais ñi nekk ci ginnaaw ñoo xam ne kenn xamul luñ doon am nañu temps réseaux sociaux yi la ñuy toog dañoo am jot man sax yaa yàlla dafa def ne man ay réseaux sociaux aw ma sax jot damay toog sax dina lii ak ku ma wax li ma ne ah ok thank you ma avancé defi leneen du ma sax déglu yenn détails yi parce que gis naa ne booy déglu sax doo mun a dem ci réew mi ku fiy déglu di nga toog ba kenn dootu déggati. parce que da ngay sóor lu bari nit ki nag bu fekkee am na signal foor boo xam ne wax nañ ko ci yow li nga def deux pas en arrière xool loolu ñu wax li nga xam ne ne moo ci baax nga jël ko li nga xam ne ne ay détails la nga bàyyi ko ak ñoom loolu la parce que boo amee teint macha allah yàlla defal la ko nga ñëw sol tenue boo xam ne dafa niroog sa yaram de loin ñu dugal photo boo xam ne ne dafa dafa dafa lëndëm daf donc photo bi leerul ñi ne leen partie bi mu def marron bi yëpp yaramam la partie bu mu def bleu bi mooy cristal bi kon loolu ku ko dégg bu moo tax bëggatuma nit dégg tëll rek ne rajax na boo déggee tëll rek demal nga vérifier même journal sax des fois nga def dégg revue de presse ñu wax ci nit lu rëy nga ibbi journal ba doo fa dégg dara kon maandu baax na mais Oumou tu penses pas que ni mënoon nga euh, choisir beneen couleur bu dul couleur boobu wala soit da nga ci bëggoon euh, buzz bi wala c'est quoi. non buzz dama ko judduwaale. nit ay bëgg buzz sax ñëw ànd ak man macha allah yàlla defal la buzz buzz moom loolu yàlla def na ko ci man yàgg na man wutuma buzz ndax sama image rek macha allah day jaay buzz la kon fi ñu toll mooy danga naan est-ce que waruma ci woon sol beneen couleur appartement 221 sol naa ci. gris noir couleur bu rafet couleur bëri rafet na trop mais dafay niroog sama yaram xëy na différence bi foofu rek la mais ay toni wala ay polémique mooy tax man sama objectif du ma ko atteindre ci. macha allah xam def li ma xam nañ ne femme battante nga. <laughs> macha fem femme battante la du may dara kooku mooy Oumou saw mais Oumou euh, comme par exemple gis nañ la fekk la ci boutique ngay wa yëngatu ci wàllu couture et tout ça euh, dañu bëggoon benn conseil rek boo xamante ni mën nga ñu ko jox pour ñu xam par exemple jigéen boo xamante ni femme forte la est que am na droit sol tenue yëpp ak ki nga xamante ni taille fine fine la ndax am na droit sol tenue yëpp. waaw ku ci nekk tamit euh, da ngay seet bi nga xam ne ne moom moo la jàpp. nga sol ko ak lu nga sentir donc li nga sentir nag da koy teg ci bitu sa sa sa ligne la mais des fois nga sol loo xam ne sax mun na bañ a ànd ak sa ligne te mu neex la dafay am genre nit yooyu man mun naa ñëw fekk daal mun naa sol benn pointure de ñëw fekk daal boo xam ne dina ma xaw a xat tuuti parce que dama ko bëgg bu dee Europe la dama koy jënd man juste une personne comme ça lu ma bëgg lu ma neex bu dee benn yoon sax dinaa ko sol teg ko fee. mais Oumou dañ la gis euh, bu yàggul nga nekkoon ci benn émission de la place ah mun naa ko sax amul benn problème parce que ñu ñëpp benn lañ muy Dakar TV nga di fa doon nekk présentatrice am fa sa émission bu tudd Oumou Show je crois voilà ñu jékki-jékki gisatuñ la foofu c'est quoi le problème ñëw nañ fekk télé am fuñ ko fekk am fuñ ko yóbbu macha allah àddina yëpp di ko seetaan banlieue bi partout dans le monde ñu koy seetaan donc euh, Oumou nag nekk na nit koo xam ne ne Euh, fu mu ñëw bàyyi activité am di fa liggéey si donte toog na fa un an wala un an et demi contrat lay xaar day xaar ñu tegal ko loo xam ne ne donc dina ci mën a sukkandiku pour mën a dooleel ay nitam parce que umu tey jii télé bu ma mënti nekk artiste bu ma woo da ngay ñëw mais artiste bi tamit xam nga condition yi muy ñëwee tey artistes yi am na ñoo xam ne tey jii yàlla deful ñu am oto dañuy soxla transport dañuy soxla tamit bu ñu ñëwee ci benn spectacle euh, spécial korité wala tabaski wala yenn événement yi wala benn umu show bay ñibbi ñu mën leen a jàppale donc man dama nekkoon di xeex condition yooyu donc euh, yàlla deful nag mu antu comme RTS laa nekkoon def fa formation di fa def placard des stars. ah da nga def formation. waaw Aïssatou euh, kii Aïssatou laa doon defar placard RTS am yoo xam ne ne jàngal nañ ma ko ba tey fu ma dem mën naa ko fa liggéey. parce que may wax nag ak nit ñi sax duma ma jàpp ne caméra mi ngi ma tiim man dama nekk nit koo xam ne damay dem ak sama feeling damay dem ak li nga xam ne ne moom laa sentir mais li ma sentir it dama koy teg ci cadre ki nga xam ne moom laa invité ci domaine am nga gëstu ko en même temps nga def ambiance parce que sama liggéey moo ànd ak ambiance moo tax ñu ne umu show comme sax show yi dafa bëri léegi ci télé yi am na umu leneen lu ma def concept bu bees la te maa ngi ko denc incha allah dina génn léegi ci incha si benn télé de la place. macha allah sama mag yi dafa jong ma pii nee naa la moom rek ci télé. dara fay loolu. <laughs> nga nekk femme battante gëm sa bopp. maa la ko wax. femme aux douze métiers macha allah. <laughs> xam nga politique moom dama ko bëgg sama xol. politique day loo xam ne ne dama ko yàgg def eh, ci jamono ab Ablaye wàdd ba tey donc eh, ak Ousmane Ngom. Ousmane Ngom laa njëkk political euh, bu parcelle donc euh, ànd ak moom temps yooyu xale laa sax xaw ma lu dul politique mais le fait que ma soloon t-shirt rek ànd ak Ousmane ngoom suy wax ñu koy déglu ay débat am ay affaire am donc ma dem ba fen ko ci loolu léegi nag ma dem ba politique nekk sama dënn Ablaye Wade ñun ñoo ko baataroon campagne 2007 euh, Macky Sall mi moo nekkoon kii bi président bi moo ñu ko joxoon ci campagne bi moom moo ko je moom moo ñu joxoon euh, caravane bleu yi ak ñoom Assane ba ak Racine donc ñu battre campagne ba gagné ko 2007 Ablaye Wade si la ñu recevoir donc kon xam nañu lan mooy campagne xam nañu lan mooy politique politique da ngay social d'abord parce que man dama dama social donc Médina bee ma nekk am na ñoo xam ne budul Médina sax damay defanteeg ñoom lu baax ci suuf donc loo xam ne ne yàlla moom moom ma koy seede. dégg nañ ne Oumou sax mu ngi lijjanti li nga xamante ne mooy place fële ci assemblée. xam nga xam li ngay fayee ko weer rek ñàkk wërsëg weesuwul loolu assemblée man xeeb naa ko xëy na nag. eh Oumou ku la yóbboon assemblée di ko gérer ba mu mat sëkk sëkk sëkk mais tey jii ki toog ci nguur gi muy Macky Sall xanaa jom. ak ful ak fayda ak gëm boppam moo tax assemblée ñi fa toog du ay du ñëpp ñoo jàng du ñëpp ñoom tey am na ñoo xam ne daara am na koo xam ne daara jolof sax la nekkoon na ma yàlla baal mais dégg naa crème la doon jaay crème mais kooku kooku yàlla ak yonent bi ak ñaanu waajuram ak am doole ak base tey ji ñu investir ko tey ji yow sax mën nañ la investir benn jour rek nga dem assemblée Oumou dañ la dégg Sodav. Sodav gis nañ ne yaa ngi fa. <laughs> jot na. ndax macha allah foo ma kupp ma dagg. maa la ko wax. ngoone nduur ci loolu lay dox. dara fayut lii. <laughs> la man dama la naw parce que damay gisuma bopp ci yow. da nga gëm sa bopp macha allah donc ñu gis la Sodav. ñuy yëkkatee loxo kan moo bëgg a postuler pour affaire euh, chorégraphie. ma yëkkati sa gëm sa bopp taxawaat. ma taxaw macha <laughs> ma taxawaat rek xoolal ne nii après ñu bind. léegi nag loolu nag euh, kii la nag maanaam dañuy siñ dañuy voté maanaam maa tëdd sama kër ba 3 heures du matin 4 heures moins Ousmane Faye manager Omar Pène ne ma Oumou Sow yaa ngi yaa ngi bàcc yaa ngi xaw ma rafle fii ma ne ko lu may rafle damay nelaw mu ne ma Ousmane Oumou Sow déglu ma mu ne ma mu ne ma yaa raw. ci képp koo xam ne mooy chorégraphe fii noonu laa duggee Sodaaf. Euh, li ñuy tëjee nag mooy nii Oumou saw dañoo gis nga am ñaari relation yoo xamante ni euh, neexu la gérer benn bi muy Youssou Ndour nga ne sa papa la beneen bi nga ne Thione Seck nga ne sa papa la macha allah te xaw ma nit ñi ñoo leen jaxase wala ndax ci ñoom la mais ñaari relation yooyu boole ko xaw na jafe loolu naka nga ko mën a gérer. ah mais. bu fekkee yow doo hypocrite ñitu dëgg nga tu es sincère da ngay wax sa dëgg Youssou Ndour Thione Seck xam na loolu sax <laughs> Super Étoile sa pap mooy membre fondateur di Super Étoile sow sa boor moo forme Super Étoile nekkoon manager Youssou Ndour dooleel Youssou nduur jàppale ko ba Youssou nduur taxaw te Youssou Ndour fu mu toll da koy wax macha allah il est reconnaissant loolu am na solo. Oumou Sow ngénteem yu Ndour moo ko tëgg loolu TFM sax toog naa wax ko fa. kon boo woyut feccoon ak tooñ Youssou Ndour moo tëgg sa ngénte. sama ngénte Youssou bi ma nekkee xale ñoom ñoo ma daan yóbbu bi may fecc ak sama papa Sow Sabor seen relation di lu yàgg nag loo xam ne ne euh, du génération bu ndaw bi ñoo ko xam génération bu mag gi ñi nga xam ne ne jamonoy super étoile 88 ñooñu ñoom ñoo fekke man 88 nag. ci laa commencé woon doon nekk ak ñoom et donc mais gën a nekk xale tamit daal yu répété fii sama kër maam rue 33 angle 16 Médina donc xam nga wax ci écran nekk porteur de voix di wax da nga war a wax lu dëggu àddina amul solo Thione sama relation ci moom mooy papa la boo xam ne bi ma tolloo ci aar bëgg ku ma wone ne former les amazones mu jël ma ay clip clip buur avant loolu sax jàppason euh, bu mu doon def fii euh, buntu euh, saam ak ñoom Mapenda Cinq Seck Mapenda Seck jamilu laay jamilu laay laay jamilu ma nekk ci xale bu ndaw sol body bu vert fluo kaset boobu wër àddina Thione lu muy def mi ngi may wo su ma su ma meree sax su ma dégloo Thione Seck damay kontaan gis nga faramarin sama biir xol lañ sax bu ma leeree ne leeree ne sax dëgg dëgg dëgg dëgg yow buggoo coon sekk sax man dama lay daw barki Seydina Mohamed relation boobu moo ma dal ci Waly Seck Waly dafa mel ni tey ji boo ibboon sama xol bi barki Seydina amul tricher dëkk moo neex yàlla parce que nag ay porteur de voix lañ dëgg la artiste bu ci nekk dinañ am lien bu ñu am ak yow ci li nga ñu wan mais bu dëgg rek dese partout dans le monde fu ma taxaw wax naa leen ko man Faramareen laa Faramareen bi ma nekk depuis mon enfance depuis bi ma xàmmee ba ràññee parce que affection laa am ci sama diggante ak Thione Seck affection boobu nag moo continuer ba tey te duma transhumé ci moom ba ici repose yal na yéex am paix yéex yàlla na yéex incha allah macha allah émission bi neex na Oumou Sow ah xaw ma woon na def yow émission nii la neexee. day parce que chaque jour man dama lay inspiré. nga may inspiré ñu yéegal niveau bi du bëgg sax mu jeex. déggal lii. <laughs> xaar-xaar day neex. moo tax it dama lay bàyyi rek ñu dagg ko ah lu neex lu neex euh, duñ bëgg mu jeex mais nag euh, nañ ko dagg rek ba beneen yoon incha allah di la bàyyi nga tàggatoo ak téléspectateurs yi lay seetaan. waaw li may tàggatoo mooy euh, nañuy xool site bi bu baax a baax baax te xam ne site bu am maanaa la. Equivox donc di kontaan ci suñu caméraman El Hadj li mu koy cadré rek laa xam ne professionnel la macha allah ah ma lay ñaanal donc yàlla na site bi dem ci kaw a kaw a kaw. te waa Sénégal nañu yéenante jàmm ku dekk am sa réussite bopp te xam na ne affaire bi du course art bi du concurrence defal ñu gis soo mënee te boo defee it na nekk loo xam ne dina saf say fans donc te ku nekk bëy sa waar du tee mu des fi waaw macha allah di euh, remercier sama cliente yi nga xam ne ne ñoo may fekk si fii Amazon boutique nekk États-Unis nekk Paris partout dans le monde nee naa la xale bu mel bëgg a mel ni Dubaay ak lampam jongoma xees def ba mu baax doo am benn tâche da ngay seet si Oumou Sow. c'était tout pour aujourd'hui on vous donne rendez-vous très prochainement dans un autre numéro de Vox Art d'ici là portez-vous merveilleusement bien gardez la souris et la pêche le meilleur à venir ici sur votre télé à de main